dali na jàmm ànd xëy yér ñu xëyandoo yéen i gi di enquête ñu xëy fekk fa Khalifa Ababacar Sall muy laaj réew mi nee nañu ko jox réew mi ci élection présidentielle bu ñu ko joxee réew mi lépp loo xam ne jëm na ci wàllum barsa wala barsàq gi dina ko lijjanti ba xale yi dootuñu génn réew mi toog ci réew mi am yaakaar ci réew mi tekk ci réew mi Khalifa Ababacar Sall ci biir journal bi yàq na musiba ak mbele ñi nga xam ne ñoom la a amee ci ko jox réew mi yéen kay gi di vox populi ñu xëy fekk fa Pierre Mboup Pierre Mboup bokk ci union nationale des pêcheurs artisanaux maanaam kuréel gi ëmb ñi yëngatu ci lu jëm ci wàllu napp ci Sénégal daan nay wax ne jamono ji ak seddaay bi maanaam risque la jël gaal gi moom Pierre Mboup daan wax ne képp koo xam ne jël nga xale yi dugal leen ci gaal jamono ji bëgg leen a yóbbu ca bitim réew maanaam soriantowul ak nga jël leen di leen yóbbu ca morgo ba ndax képp koo xam ne jël nga gaal gi jamono ji sa bakkan mën naa des ci li ko waral mooy sedd na ba jéggi tayoo période bii baaxul dafa sedd bu baasee seddaay bi tamit ngelaw lu am doole mooy am ci biir géej gi loole la Pierre Mboup wax Pierre Mboup membre la ci mbootaay gi ëmb ñi yëngatu ci wàllum napp ci Sénégal daan nay wax ne risque gënu ko mag jël gaal gi jamono ci yéenekaay gi de la Tribune xëy dañu xibaar naan ñu xale yi nga xam ne ñooy jël gaal gi freiné leen fexe ba ñu bàyyi jël gaal gi du nekk loo xam ne dina yomb ci réew mi ndax xale yi boo leen bëggee bàyyi dara dafay am loo xam ne moom ngay teg ci seen loxo ndax xale yi jamono ji teguñu dara ci seen loxo te bëri na ay xale yoo xam ne amatuñu yaakaar ci réew mi yéenekaay gi de la Tribune nee na en tout cas ñi nga xam ne ñoom lañ dénk réew mi bu ñu bëggee xale yi toog ci réew mi il faut ñu am lu ñu jël teg ko ci loxol xale yi journal bi nag daan nay wax ne bu passé promesse dige yi nga xam ne nguur gi ma ngi koy dige amul leneen loo xam ne teg nañu ko ci loxol xale yi te dige la yoo xam ne dara duñu ko ci def jeunesse bi jamono ji amatuñu yaakaar ci réew mi du samay kàddu damay nettale yéen a kaay gi de la turbine moo xëy di ko xibaar yéen a kaay gi di critique xëy duñu xibaar naa ñu moo ne day état tudd ay milliards yi milliards yi milliards ni milliards yooyu ci xale yi la jëm waaye nag tey ji a tumuranke ji la xale yi gën a am ay jafe tey ji xale yi gën a jël gaal te ay centaine de milliards la état Sénégal di wax ne at mu jot moom lay dugal ci ndaw ñee lajj te moo ci ama loo ko waral nag mooy tâtonnement làmbatugeeg ñàkk xam fi nga jëm gi nga xam ne moom la nguur gi nekk loolee moo ko waral yéene kaay gi xëy duñu xibaar nañu nag li doy waar ci mbir mi jamono ji bëri na ay xale yoo xam ne ñoo ngi ci faatu ci géej gi waaye dafa mel ni ñu yëngutu ci lu jëm ci wàllum politique seen nga ñi nekku ci muy pouvoir bi di dafa mel ni xale yi faatu ci géej gi loolee intéressé wu leen presque doo dégg kenn wax ci li leen ñor ak li leen yitteel mooy élection

réew mi ndax keroog bi nga xam ne tribunal bu Ziguinchor jox na dëgg Ousmane Sonko ngir ñu dugal ko ci liste électorale yi agence judiciaire de l'État dafa lànk ci àtte boobee dem ca kanamu Cour suprême ngir nag ñu daal di yàq boobale àtte fukki fan juróom-ñaar ci weeru novembre la koy àtte sa Cour suprême date boobee nag ci la ñuy jàppale Ousmane Sonko ñoom tim bëgg a amal ab marche ci Sénégal gi yëpp yéen a kaay xëy duñu xibaar naan ñu ñoo ngi jëm ci am marche nationale a élection présidentielle 2024 jamono ji ñoo ngi xar seen tànk tubaye yéene gi dala koti ca xëy duñu xibaar naan ñu Abdoulaye Sylla mi ñu nommé ca Sénat jamono ji coow li bëri ca Amadou Ba mi bokk ci Pastef dafa jàpp ne dañoo feelu loi bi réew moo xam ne bu ñu demee ba kilifa yi di jalgati ay loi aya bi mbang sa talaakur sa yéene gi di bés bi xëy duñu xibaar naan ñu décret nomination Abdoulaye Sylla décret la boo xamante ni opposition bi danañu ko ak ci gaz bi dañu koy teg ci taabal ji waxtaane waat ko waay yéenekaay gi di Walf Fadjri xëy duñu xibaar naan ñu neexul ba neexul waaye Sénégal neex na bëri ay nomination yu Macky Sall def ñoo xam ne ay retraité la Macky Sall jël Macky Sall dafa jël ñi nga xam ne ñoo retraité ba toog seen commencé lire journal ñooñu la Macky Sall jëli waat andi leen yéenekaay gi nee na poste yu stratégique yi poste yi nga xam ne yu am solo ci réew mi la Macky Sall jëli ay retraité maanaam daal fa yóbbu yéenekaay gi di bés bi Assane Gueye chronique bi nga xam ne def na ko na mu ko tuddee mooy retraité yi ñoo remplacé ay retraité yéenekaay gi ci l'essentiel xëy dañu xibaar naan ñu bu dee am na lenn loo xam ne moom la ñu war a mooy nomination yu bëri yi nga xam ne Macky def na ko fan yi si ginnaaw lan moo nekk ci ginnaaw nomination yooyee yéen a gi nag nee li gën a doy waar ci mbir mi ak li gën a reetaanlu ci mbir mi mooy ca diwaanu Sénat Sénat ab retraité la ñu yóbbu fa ab retraité loole nag aaya bi mang sa tala kurusa yéen a kaay di Verdi News xëy fësal ci xëta at yi ñu ko yóbbu duwaan maanaam soppar ñi la duwaan soppi na fu lu bare bari ci ñetti at yi taxawaay bi Abdourahmane Dieye amee ci biir duwaan feeñ bu baax baax ci koomu réew mi ngi ni kay gi di Verdi News nee na Abdourahmane Dieye mi jiite woon duwaan homme de conviction la homme de principe la ku am rigueur la ci liggéey bi journal bi nee na li firndeel ne Abdourahmane Dieye liggéey na liggéey bu am solo ci duwaan mooy ci atum lu toll ci m milliards recettes yoo xam ne génne na vingt milliards ci atum 2020 maanaam lu toll na ci parcours bu Abdourahmane Dieye moom la journal bi di Verdi News xëy di ko faram-fàccee ak liggéey bi mu def duwaan yéen kaay gi de Le Quotidien yor yora ñu xëy fekk fa Habib Sy daan nay wax ne Macky Sall jamono ji dafa war a noppaloo ndax nag mbëggeel gi nga xam ne moom la xale yi bëgg Ousmane Sonko loolee Macky Sall mënu ci lenn te Macky Sall mënut a génne Ousmane Sonko ci xolu ndaw ñi nga xam ne ñoo ko bëgg ci réew ko bëgg yéen gi di enquête xëy duñu xibaar naan musiba ma ba kumba gi commencé wàn na ci réew mi ak seen lega xuyu xamaj yi nga xam ne moo am ci réew mi maanaam wàllum délestage journal bi nee na ñi nekk ci ndakaaru ñoo ci gën a am ay jafe-jafe yéen gi nee na coupure yi commencé wàn na waaye nag ñi nga xam ne ñu waa Senelec ñoom nee nañu jamono ji dañuy liggéey ngir réseau bi gën a baax yéen gi délibération ci xën mu njëkk ma mu ñëw ci Boly Ndiaye dribble ñi nga xam ne ñooy waa fisc bi waaye nag loolee mujjut a sotte yéene kaay gi di Verdict News xëy duñu xibaar naan ñu ca diwaanu Pologne procureur ba ubbi na fab enquête jëm ci wàllum blanchiment d'argent wàllum pot de vin yéene gi nee procureur ba nag li mu bëgg mooy déglu ki nga xam ne mooy Aly Ngouille ndax jamono jëm mbir may xew Aly Ngouille moo nekkoon ministre bi ñu dénk wàllu miin ci Sénégal journal bi nee na Aly Ngouille a gi di bés bi xëy duñu xibaar naan ñëw ñi nga xam ne ñooy wax sénéra yéen a ngi fàttalikoo ci weeru février coupé woon nañu fii signal Walfadjri Walfadjri jëloon sénéra ñoom Babacar Diagne yóbbu leen fa ma doone benn ca kanam mu cour suprême cour suprême àtt na mbir mi jox na waa Walfadjri dëgg yéen a kaay gi de la turbine xëy wax ci lu jëm ci wàllum njàng mi ak njàngale mi ak réunion conseil académique bi nga xam ne doon nañu ko amal ci lu jëm ci njàng mu kawe mi yéen a kaay gi ne université jamono ji parewul pour ubbi ay ñu bëgg maanaam ñu def ay cours en distance toog ñu leen di jàngal yéen a kaay gi di évidence nee na ndax jëmuñu ci année blanche yéen a gi di direct news xëy duñu xibaar naan ñu élèves yi nekk ca lycée bu Popenguine jamono ji mer nañu ba mara détale sumb nañu gerew boo xam ne gerewu ñetti fan la la ko waral mooy amuñu ñu leen jàngal yéen a kaay gi di vox populi xëy duñu xibaar naan jafe-jafe yi am diggante Baay Faal yi ak pël yi ci diwaanu Touba sëriñ bi ma ngi koy réglé ndax sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru nee na ñaari camp nekk na ànd ko dal na dossier bi dina ko lijjanti yéen a kaay gi di l'observateur xëy duñu xibaar naan ñu faju gi jamono ji bu yokkee ci hôpital privé yi bu mu leen bett la ko waral mooy taxe yu yees yi nga xam ne moo ci am journal bi nee na faju gi dafay gën a yokk ndax li nga doon fay di nga ci yokk lu toll ci 10 pour cent yéen kaay gi nag nee na ñi nga xam ne ñooy clinique privé yi boo muy tuulee redressement fiscal man naa dal ci seen kaw yéen kaay gi de la Soleil xëy di ñuy xibaar naan ñu ku leen xëy di laaj ana Marème Faye Sall wala ana Macky Sall ne leen ko dem na ci diwaanu Paris la France ci sixième forum de Paris bi ñu def ci lu jëm ci wàllum paix yéen kaay gi de xëy di ñuy xibaar ñu coow li amoon ci diwaanu Kaolack tàmbali woon ki nga xam ne mooy Cheikh Fall mi ñu doon tuumaal lu jëm ci wàllum nguur jigéen daal di koy taal jamono joojee bëri ñoo xam ne tegoon nañu leen loxo am na si juróom ñoo xam ne démb àtte nañu leen ca tribunalu Kaolack waaye nag juge bi am na yërmande bu baax a baax dawal na yërmande ndax ñettee weer yuñ du tëdd la leen tëj trois mois sursis gi di lay siko ca xët mu njëkk mu ñu fekk fa la Diop ministre des sports ministre bi ñu yaram ci réew mi ministère boobee nag nga xam ne ay paa lañ te nekk fa la Diop jamono ji ma ngi leen di dàq yéene am na ku tudd jëlee nañ ko fa ku tudd Cheikh Sarr jëlee nañ ko fa ku tudd Mamadou Fall jëlee nañ ko fa ñii dañoo retraité bu yàgg yàgg la Diop nee na du liggéey ak paa yi nga xam ne dañoo retraité xale yi am liggéeyal. mën ngeen a ci seen chaîne YouTube ngir ngeen di mën di déglu seen revue de presse ak Abdou Khadre Seck. Jotali.net moo leen di jox ay xibaar ci tàng-tàng bi Jotali.net ay